waaw alaykoum, moo Barini. ñi suis ngi nuyu yëpp ku santam et je suis venu à un projet qui xam ça fait 10 ans ñuy ci c'était pour lutter contre la déperdition scolaire et amoon quartier et Alhamdoulilah, nous avons nañu infrastructure bi une maison communautaire pour éduquer les yi et xam naa dinañ leen ko présenter après et projet bi nag comme ni ma ko waxee rek projet ASC Baye la ASC bi ñoo toogoon xalaat ci développement communautaire nan lañ mën a def ba am maison communautaire ba am aussi gaal une pirogue pour insérer jeunes yi pour ñu bañ a dem à l'aventure et yooyu yëpp yàlla dimbali nañ ci et léegi nag école bi dañ ko bëgg a démarrer dans de brefs délais maanaam ci ouverture bi daal ñuy démarrer école bi ubbi ko et xam naa après dama leen di bàyyi ak le chargé des études le directeur moom mu defal la présentation kii bu baax ñu ngi ñaan yëpp nag waa Bargny yëpp ñu ñëw parce que wax fa dëgg yàlla cadre école bu mel nii def naa amul fi ko amul bari fi ci Bargny waaw ni ñëw ñu ñëw inscrit seen xale bu defee ñu ànd ñoom bokk si lii defar Bargny quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki bari ñi ñu ngi leen di nuyu di leen baalu waa ASC Baye ñooy wax ak yéen waa ASC Baye dañu am euh, information bu mag boo xam ne moom la bëgg a jox parents yi euh, dañu am benn école benn benn maison commune de Baye boo xam ne. dañu fi bëgg ubbi école pour tout tànk yi tout tànk yi ñu am ñetti at ñeenti at ba juróomi at euh, ñu doon ñu leen wax ne école bi pare na pour ngeen ñëw indi seen doom ñu bindu si alors suñuy tarif vraiment on a fait du social dañ ko yombal euh, parents d'élèves première section digde ñetti at ñenti at ak inscription 13 000. mais 13 000, inscriptions, 5 000 francs mooy inscription réellement a 5 000 francs dernier mois de l'année. 3000 3 000 francs les des 12 vous faites 13000 13 000 francs d'inscription.

jangale kat yi ci école publique yi tout tank beaucoup boobu formation la ñu am Mais ñu ngi wóor ñëpp daal pour ñu gaaw inscription yi commencé na depuis le 15 euh, le 15 août ñu ngi arrêter le 15 septembre bëgg commencé enseignement yi octobre donc ñu ngi ciy woo ñëpp maa ngi jox parole euh, conseil notable, notables muy Ousseynou Gueye Moussa Ndiaye Kane waaw salaamaaleykum mooy comme ni mu waxee woon rek waaw mooy école bi daal bu école dimbalante ah, ah, la quoi waaw bari ñi yëpp du du pour rek la am sa doom daal bu bëggee mu jàng boo ñëwee inscrire la waaw affaire bi daal noonu rek la demee du quoi ah, rabbil alamin di nuyu ñëpp mbokki maa ngi leen di woo surtout sama mbokk jigéen yi mag ak ndaw maay woo parents d'élèves yëpp ci école Baye maison commune de Baye école bi dañ ko bëgg a ubbi déwén école bi bëgg nañ bépp parent d'élève boo xam ne bëgg na doomam jàng ci kàttanu yàlla mu indi ko fii xale nag trois ans lañuy ñuy commencé ba cinq ans inscription bi treize mille mais treize mille bi dix mille bi mooy inscription bi ak dernier mois bu mujj bi cinq mille chaque weer cinq mille francs la ñuy inscrire trois mille francs yi mooy blouse bi ba pare xale yi dinañ leen toppatoo jàngal leen ba yéen parents yi bu boobaa di ngeen ci kontaan te di ngeen ci gis seen bopp ndax gëm naa ne école bii jóguñu rek tabax ko wala jóguñu rek def ko noonu dañu jóg pour xale boo xam ne bu subaa bu demaatee si yeneen école yi dinañ xam ne kat kii école maison commune de Baye la jóge te jàng biñ ko jàngal foofu baax na te dina am éducation bu rafet boo xam ne nii fépp fu mu ti dem di ngeen ko gis ngeen xam ne kat man kat sama doom bi li ma ko dugalee ci école bii lii la doon jariñ école bi nag bëgg nañ bépp parent d'élève boo xam ne mu ngi si bëgg na doomam jàng mu ñëw inscrire parce que inscription bi sax commencé na depuis 15 août ba 15 septembre lay jeex mais élèves itam dañ ko limité parce que tamit dañu bëgg ñëpp inscrire seen doom yi ñu limité élève yi bu ko defee élèves yi ñu jàng jàng bu baax boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp. école tout tànk yi li ñuy seen heure mooy huit heures ba treize heures. do une heure lañu jàng waaye école bi day continuer après midi ngoon ji ñi nga xam ne dañu nekk école primaire ñi nga xam ne dañu nekk lycée mën nañu ñëw am na ay activités yu bari dañu ñuy prévoir bu ñu amee ay devoir wala ay exercice dañu leen di encadrer n'est-ce pas am nañu salle d'informatique ak bibliothèque lépp loo xam ne daal xale yi soxla nañ ko pour seen jàng ñu leen di ñaan ngeen inscrit doon Euh, pour ce qui concerne élèves école primaire euh, encadrement bi ni koy assurer moy ñi nga xamné ci quartier bi lañu né am jot xamné mën encadrer xalé yi CM2 primaire euh, collège troisième jusqu'au bac d'art. waaw il y aura tous les équipements nécessaires ñu ngi équipement yi bala mu yàgg dinañ yegg inshallah incha allah bu ko defee ñu